waaw asalaamaaleykum. jàmm nga am. <laughs> jàmm rek. ah yow résultat Mabo yi tam tam nag loolu nag moom nu mu demee noonu. gannaaw bu ma sant yàlla julli si yonent bi maa ngi gërëm samay waajur di sant sama sëriñ Seydou Mouhamadou Modou Mokhtar di ñaan yàlla mu yokk ay leeram yaakaar naa boo boo seetee Sénégal ku mu ci gën résultat amul parce que ñun département bi cinq candidats la ñu allo. waaw ñu ngi lay dégg. cinq candidat la ñoon waaye ku ma ci gën résultat amul ñu ma gañe ci bureau de vote ci département bi kenn gañewu ko rawatina Maabo goon ngay wax. mais Maabo dañ la faa gañe tëdu. waaw biir Maabo man lañ ma gañe waaye dëkk àll yi wër. Maabo ah d'accord ok. Maabo ko gañe bi ma nekk politicien ba léegi. may leeru hmm. Maabo waaye mënu maa gañe Maabo. àll bi nga koy gañe quoi. waaw. Hmm. maa gañe fi ma dëkk muy wanaar. maa gañe siin maa gañe kumpal maa gañe ndóylu maa gañe kër jibi maa gañe kasaab euh, kasaab balangaar maa gañe euh, njorol tukulóor kumpal laaj laaj leen ñoom hmm. département bi laa gañewul hmm. waaye boo analyser li ma am yëpp commune Maabo hmm. waaw waaye département bi nag gañe ko. Ah, kon boo jëlee village yi yow yaa gañe commune Maabo. kalkin ko. waaw noo damay laaj rek. waaw. Mhm. man du ma du ma gars yi ñoo ma wax rek man li ngay gis nii kaw kaw laa man bu ma xamee ne dootuma département bi laa pare man. Hmm. léegi département bi leer na ni kon Pastef moo ko gañe. waaw moo ko gañe may félicité ku ko gañe. Mhm. di ñaan yàlla mu def ma député ci. ci sama dund. Hmm. parce ñaari yoon nekk naa ko candidat député ñaari yi ma ko nekk yëpp liste bii ma bokkoon jàllut bii nag mu ñëw bokk ci liste ba mu jàll. kon loolu hmm. sunu borom la. bi hmm. may bëgg a nekk député booba nekkuma maire. bële laa ko bëggoon a doon yàlla dogalut ko beneen bii nii yàlla dogalut ñaar yëpp jàll ma ma jàll bi ma li ma xam ci département bi su ma nekkuloon candidat du ma ko xam. Mm-hmm. te suba laa gën a bëgg a nekk député Sénégal. Mm-hmm. mbër bu bëree daan day dem defarwaat. Ah, waaw di ñaanal ki yàlla def député ci département bi. yàlla na yàlla dogal mu liggéeyal département département bi rek moo ma yoroon ci député bi waaye du sama poche. Mm-hmm. sa mbër mu nga daan àndal muy bëree di daan ndax dimbali na la ci élection yi. waaw. Hmm. dimbali na ma lool. ma dimbali mbër rek ma dimbali ci élection yi. élection yi bëri na am naa ñaari mbër yu mu ci dimbali. Hmm. waaw am na sax. élection yi li ma ci dimbali bëri na est-ce que xam ne élection yi nit ñi may nañ ma ci quinze millions. <laughs> yàlla xam na loolu. man du ma wax lu dul dëgg. Hmm. nañ la ci fukki million ak juróom. mais mais ma dugg naa ko ci askan wi nag. waaw waaw campagne daa metti carburant beeg waaj meeg t-shirt yeeg. laa ilaaha illallaah man kay damaa yërëm gars yi campagne sax Sénégal yëpp man département rek laa campagne. Hmm. maa a def nga quinze millions waay. imagine imagine bu ma naroon a campagne def euh, Sénégal yëpp man gars yi campagne Sénégal man laa yërëm. Hmm. léegi bës bi nag noo def ak moom euh, gone yi jël nañ sax yëf yi def ko musique. Moustapha man xam nga bu ma bëggoon a am bës grand man xam naa ne bu ma bëggoon am bës ba amee bës yàgg na <laughs> parce que man yàgg naa Ndakaaru politique moo grand rek waaye ni ma mel noonu laa mel man kaw kaw laa ci hmm. fierté pour kaw kaw bi ma doon li may yàgg yàgg Ndakaaru mënuma changé sama langue wax mënuma changé sama jëf hmm. kaw kaw laa te it staaru wala télé laa bugg loolu rek waaye fu ma jaar insha allah man fu ma jaar fii nit ñi dañ naan ëlliwa nga <laughs> yàlla moo dogal yow mii nii yow mii nii rek boo nekkee Dakar xam jafe jafe stress koy waxee hmm. naan hmm. parce que nitu jàmm laa hmm. Sénégal jàmm rek amiin xam na nag man Ousmane Sonko nag man mii Ousmane Sonko xam nga ne moom a gagné waaye du candidat bi si neew moom kan moo ko nekkaloon foofu mbir ki lan samba dal lañ koy wax ah d'accord kon ah, ko nga kan la samba dang nak nak député la woon itam yow tam samba dang kay mat na mbeur ah eh, waaye man mbeur laa de ñoom hmm. ba muy campagne man ba may campagne sama bopp laa doon tudd nit ñi doon doon wax sax ëllëg ci hmm. fan la sax xam nga kon man damaa wóolu sama bopp waaye moom daf naan su ngeen ma woteelut da ngeen a wor Ousmane Sonko hmm, bor ci Sonko ah xam nga voilà xam nga Ousmane Sonko yàlla def ko may. Mm. lu mayum mayul keneen. Mm-hmm. waaw loolu la te yi moom la kii. waaw nuyul ñu bàyyi nuyul ñu nuyul ñu bàyyi antu. ah yow foo xamee bàyyi antu. ah nuyul ñu ko rek. waaw incha allah. waaye waaye yoonu yoonu yoonu maabo bi nag xanaa nag euh, Pastef dina ko defar. man da dama tok melni kuy photo rek man xam nga ne bu doon sama sago kay député bi du réussir dara parce que 5 ans ci karam dama bëgg def <laughs> man kay loolu duma ko nëbb man kay bëgg mu mu liggéey dara 5 ans 5 ans de pënd encore rom mëna pënd sax bu doon sama sago day dolaat ay kamb nit ñi duñu am fuñ jaar ah dana war ma wonu dëkk la de ñoom ndey juuf lambaay ak euh, euh ndaw sa waroon daameloo si leen mu tudd yaay ja eh? ma ni ñoom Ndey Juuf ñu euh, tudd sax waykat bi Ndey Juuf ndax Juuf bu sëñ Fallu ak yaay ja waaw euh, waroon daameloo si seen dëkk bi dëkk la de war naa am tali ah, tali bi tàmbali nañ ko tali bi ci jamonoy Macky Sall lañ ko tàmbali woon état bi ñëw na si di ko mottali naa ngi ñaanal Samba Dam député ju ndox yàlla na ko jub di ñaanal réew mi yëpp jàmm di ñaanal waa RFM di ñaanal télé beeg rajo beeg lépp yàlla mi mën a maye jàmm yéen journaliste yooyu yàlla na ne yàlla defal jàmm merci réew mi ku leen bëgg yàlla na am jàmm ku leen bañit yàlla na ko yàlla fexe ba mu bëgg leen barki yeneen bi merci merci Aliou jërëjëf Sénégal jërëjëf